toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Yeah. Fana Makbul wu tedd wi indil ñu sangi mbindéef yi ngeen dajee ci xadara bu sell bu màgg bi di xadaraat wilaaya di xadaraat xam-xam di xadaraat ijaaba di al ko ci ay yu fasantikoo ak ci ay place yu wuute ci biir réew mi ak ci bitim réew ci diggante ay góor ak jigéen ëmb ay mag ak i ndaw boole ay xarit ak i soppe dajale ay wëllëre ak i bokk lamboo ay doomu soxna lamboo ay boromi xam-xam lamboo ay aima lamboo ay muqaddam lamboo ay notable yéen ñépp ci seen tur ci seen sant ci seen jëm lay abbee làmmeñu xadara bi di xadara maam khalifa ñas góoram yàlla bu tedd la borom xam-xam yi borom xam-xam yi ci njiital xalifaam bu tedd bii di suñu xalifa di suñu kilifa mawlaaya cheikh ahmed tijaani ak ay ay doomam ci ay doomam yoo xam ne dañ koo doomoo ci liggéeyal ko ay doomam yu ko doomoo ci taxawu ko ci njiital suñu mag ju baax ji sayidi wa mawlaaya alxaji ahmad babacar nga xam ne jotaay yi mu fekkee bi ñaaw bu naroon a ñaaw sax yàlla mën na ko rus ci xolam bu rafet ba far rafet ak ci teewaayu suñu professeur nekk suñu idool nekk suñu xulwa di alaalimu alallaama tabaarakallaahu suñu as xalifa bi toog waaye ci turu suñuy mag yu baax nga xam ne teewaayu ñi fi teew teewal nañ leen ku mel suñu mag papa xalifa ñas suñu mag cheikh ahmed tidiane omar ñas suñu mag jàmbaaru pii bi sidi mouhamad ibrahima ak cheikh Mouhamadul Habib mi toog ak cheikh Mouhamadul Bachir mi toog ak cheikh Papa Aliou Niass ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñu ci xadara bi di ay doomam waaye ci turu ay sëtam sët yooyu yëpp su ma ci tuddee alxaaji ahmad Niass ma ne toog di ngir koo xam ci ahmad Diaw taxawaayam ci burda bi wutuñu ci ñun ñépp mu ànd ci équipe bu amul morom bi Seydina Omar nekk ci imaam alxaaji Zeynabu nekk ci ak ñi ko jàppale ci liggéey bu rafet bi ba weer wi teeroo ba léegi seen tur ab waxee ci seen làmmeñ nuyu leen gane sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci weeru sayduna muhammad ci xadara sayduna muhammad nuyoo bu mooy nuyoo aljana ci waa aljana muy assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu abbaat lan nañu pays bi tatagal leen dalal leen dalal leen ci suñu néegi xol yi njëkk ñi leen di dalal ci suñuy néeg yi fu nekk rek nit bàyyi ko na ànd ak ngànt loo xam ne waroon na koo teree mën a ñëw am na ci ñoo xam ne ngàntal mage daboon na leen ba ñàkk war a mën a ñëw waaye jëmm mën naa màgget mais xol moom du màgget ak cofeel am na ci ñoo xam ne ngàntal jamono fi mu toll ci xataay maanaam dab daboon na leen bañ mën a ñàkk ñëw waaye loolu lépp ñu sànni ko gannaaw ñëw wuy si maam Khalifa Niass ci tëjëb burdaam bii kon yàlla rekk am seen fay yàlla nañu leen yàlla fayal kenn ko ci nekk lii bëgg-bëggam yàlla na ko ko yàlla defal ba defal ko ci lu kawe njorto jéego yi ngeen jéego ba ñëw fii yàlla nay jéeguy sippeeku bàkkaar yéeguwaayu maqaama yëkkatikuwaayu daraja ubbeekuwaayu bunti wërsëg yi tàggartiku lépp lu takk ci yaram yi ci wërsëg yi ci njaboot gi yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na leen ko yàlla defal defal ñu ko ci barket sayduna muhammad mi ñu fi dajale sallallahu alayhi wa di jëmm ju sell ju tedd joo xam ne kenn la waaye di jëmm ju sell ju tedd joo xam ne lenn la bu la neexee nga ne mufrad la mu amul tasniya mufrad la mu nanguwul jam kenn la lenn la ci jikko ak ci melo ak ci mbaax melokaan yi melokaanoo moom kenn rek ko melokaan mbaax gi nekk ci moom ci moom rek la nekk moom rek moom mat modèle yàlla ba mu samp ko ci suñ ne wa in tutiiuhu tëhtëd moom kenn kese muy jëmm ju tedd ju sell joo xam ne mat na sëkk ci lépp mat na sëkk ci fépp mat na sëkk ci taxawaay yépp matam googaa tax yàlla tagg ko ci jikko jàllar ko tagg ko ci juddu jàllar bi ko tagg ko ci melokaan tagg ko ci jikko ne ko sa jikko ji dal dafa kawe mbolém jikko yu rafet yi jikko yu rafet yi fi ñu ci rafetay fofu la sa jikko ji commencé jëm kaw motax mu ne ko wa innaka la ala khuluqin azim bañ na ko ba jëfëndiko harfu ala muy tektere al isti'la moom daal jikkoom ji dafa tiim jikko yépp yeneen jikko yu dul moom yépp féetee ko suuf moo tax mu ne innama bu'istu li ma makaarimal axlaaq mu nekk koo xam ne tamit dafa rafet juddu moo gën mi ndee fi yàlla yu juddu limal nañ ko juróomi téeméeri maam juróomi téeméeri maam yooyu yëpp maam bu tilim amut ba daana ko maa wala danii min sifaaxil jaahiliyati maa wala danii illa nikaaxul islaam rafetaayu jikko ja ak rafetaayu maanaam askanam waa tax yàlla présenté ko ne laqad jaakum rasulun min anfusikum ñiy jàng min anfusikum ki gën a cher ci yéen gën a sell ci yéen gën a baax ci yéen laa leen indi waaye melokaanam yi tamit dafa mat sëkk melokaan yi melokaanoo amul benn mbindéef bu ko melokaanoo moom Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa lim set ci jikko set ko ci melo set ko ci juddu moo tax ku ko bëgg a takkal yàlla faxasal ko takk takkal yeneen yonentu ya ko jiitu woon kuñ ca takkal yàlla dalay bàyyi ak sa bopp nga faxasal ko sa bopp luñ la mën a yoonu yàlla nekku ca yaa koy satalal sa yonentu lañ mi premier yonentu buñ ci ak dalaalin mubiin waaye moo sakkal boppam de qaala yaa qawmi laysa bi dalaalatun walakinni rasulu min rabbil alamin mais yàlla waxul ko de moo ko waxal boppam yaa qawmi laysa bi dalaalatun walakinni rasulu min rabbil alamin yonent yàlla huut ni jël na takkal ko ne ko yow ñaari jikko moo nekk ci yow moo tax mënuñ laa gëm doo wax dëgg ñaarel ba da nga des ñoruloo innaa la naraaka fii safahatin wa inna la naxunaka min al-kafirin mo taxaw setal bopam qala ya qawmi laysa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin waaye yàlla setalu ko de mais mo setal bopam nga jël yoronte yàlla Muusa firaaw na taxaw taqal ko ne ko yow dañ laa njabar sa xel mi ñuul àndoog sa sago ñu ne kon judduwul ci yoon attaqué yaayam ne ko yaa uxta haaruna maa kaana abuki imraa suu'in wa maa kaana tummuki bagiya mu ne ah da ngeen maa takkal ba takkalaale sama doom kon moom lay joxe mu sakal boppam xam naa ne yàlla du ko sakal fa asharat ilayhi qaalu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiyan متخاو سيتال بوبام دي يالا واخو دي موي واخ قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واي يالا واخو فن انه عبدي اتيته كتابي وجعلته نبيا ديريت موم نوكو واخ واي سيدنا محمد موم بو بو سا خالي با ني تخال كو با ني تخال كو melokaan yàlla ko moo tax taxawal nañ ko taxal ko ne waykat la poète rek la lii mu ñu indil yëpp ay poésie la yàlla ne maa koy setal wa maa allamnaahu shi'ra wa maa waxaat fale ne wa maa huwa bi qawli shaa'irin qaliilan maa tu'minuun ñu taxawaat ne kaayin la buqaaba kat la lim indi lépp waxi buqaaba rek la يالا نديرين ولا بقول كاهن قليلا ما تتكلم كون موكو سكال ني تخاوات ني موم دوفلا يمبو انه لمجنون يالا نديرين وما صاحبكم بمجنون وما انت في نعمه ربك بمجنون نتقل تيرم بسبب لأساطير الأولين اكتتبها وهي تملى عليه بكرة وعشية يا الذي تنزل من رب العالمين kon moom daal képp ku ko mos a taqal rek yàlla saxal ko bàyyi taxam ba abi lahab bi mu taxawee taqal ko xas ko ne ko tabban laka alihada jamaatana saairal yawmi yàllaa ko saxal ne ko tabban tabbat yada abi lahabin wa tab maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab ba jeex waaye yonentu boo waxati taqal guñ ko mën a taqal yoonu yàlla nekku ca mooy setal boppam mbaa ña ko gëm setal ko mais yonentu bi ku ko taqal yàllaa koy sax loolu rekk doy na garab sallallahu alayhi wa sallam muy jëmm ju tedd ju sell joo xam ne mayam yi ko yàlla may dafa nekk ci biir jëmmam ji yeneen yonentu yi wuuteeg moom jiitu woon ko seen may ya dafa nekk seen biti jëmm ya moo tax yonentu boo waxate bu dul sayyiduna Muhammad grandeur bi nekk ci moom ak personnalité ga ba tax nitam ña gëm ko la ko wane dafa nekk ca biti jëmu ja mais Seydina Muhammad moom la ko wane lépp dafa nekk ci biir jëmmam ja ci ruuxul bayaan fi muy tafsiree ak maanaam aaya ya ayuhan naasu qad jaakum burhanun min rabbikum la commencé di wàccee yonent yi par kenn boo jëlee yonent yàlla aadam may gi nekk ci moom ak ba tax malaaka ya root nit ña gëm koo lépp la ko wane ci biti jëmmam ji lu ko wane mooy lan malaaka ya ko sujjootal rek aadama njëkk malaaka yi di ko sujjootal moom ñëpp a xem moom ñëpp a waaye keroog ba malaaka laxasaayoo nekk taalibeem moom mu nekk seen sëriñ te ñoom ñoo doon bàkku ne wa nahnu nu sabbihu ñoo lay sabbal إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها ما يسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون نيوانا كرب بيان لن أسجدوا لآدم تلين دورا قد قد قد ما يسجدوا في المام آدم كون آدم لقواني ملاكا وإن لقواني نبوك جمونجو بوجل يونتي الله نوح la ko wane moom jamaat la mooy gaal yonentu yàlla noo avant muy defar gaalam def ko ñetti étage bii njanaaw dugg ci bii nit ñi bii mala yi moom ñëpp a xemoon waaye keroog ba ko yàlla ne ko wasna'il fulka bi ayunina bi maanaam wasna'il fulka bi naa wa waxina ci lañ door a xam dëgg dëgg may yonentu yàlla noo mu sóob ca xuus ci géej gi juróom benn weer gaal ga teeree ji ca juudi yu ba alquran ne wastawat alal juudi yi kon mu nekk moom la ko wane yëpp mayam nga jamaat la nga jël yonent yàlla ibrahima picc ko wane ay picc ak safara njëkk yàlla di ko dugal ci safara wi moom ñépp a xem njëkk muy wax yàlla ne ko wan ma nooy dekkilee ñu dee ñi ba mu wan ko ko ciy picc moom ñépp a xem waaye keroog bañ ko dugalee ci safara wa jéngu ko yàlla ne xul naa yaa naaru bardan wa salaaman ala ibrahim mutahawan taxawaat rabbi arini kayfa tuxyil mawta qaala awalam tu'min qaala bala walakin li yatma inna qalbi فقد أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا mu indi tanak baaxaañ ak jàmba jóobam ganaar ak jaxase seen yàpp ya ak seen dugg ya yàlla ne xooleet ba mu leen wooyee benn bi ci nekk fa mu bokk fekki moromam lañ door a xam ne yonentu yàlla ibrahima mii du nitu caaxaan kon moom nekk njanaaw rek ko waree yonentu yàlla Moussa li mayam di rëy rëy répp xet rek moo ko wane xet xet rek mosta teqali yet ba muy sàmm ca Suwayb bi la ko yàlla wan la wan nit ñi kii ay mayam ci yet ba mu ne sa at mu mujj mi nag gàtt bu juddu amee melokaan wi yaa koy moom mu jël yat wa dóor ko ca ndox ma gàtt yëpp jur mel noonu mu yorati yat wa di sàmm bu tilli ya bëggee lekk gàtt ya yat waay dem dàq leen bu bu gàtt ya bëggee dugg ci toolab jàmbur yat wa mooy dem dàq leen yàgg naa ak bu de demee ba guddi gi jot mu lëndëm yat wa mooy soppeeku projecteur di ko leeralal fi muy teg tànkam ak ak ñim àndal wa woo wala taqalikoo ba fekk mu na kàccoor ba ca pale ba yet wa lay jël moog moom ba mu jàpp yow mu ziinati indi ay njabarkatam soixante-dix douze mil njabarkat war a jaamaarloog moom teel yàlla ne ko sànnil sa xeet mu lekk jabarkat ya dàq firaaw na mu kabine boppam ci lañ xam ne Moussa mii du u caaxaan la ko wane lépp mooy xet wa rek kese wa ma tilka bi yaminika ya muusa qaala hiya asaaya atawakkau alayha wa ahushu bi ala ganami wa liya fiha maaribu uxra moo wane moom mooy kan boo jëlee yonentu yàlla isa li ko wane lépp benn maidatu la muy taabal bu defu ñam ay jën nekk ci ak mburu gannaaw bañ taxawee ne ko waaw hal yastatiu rabbuka an yunzila alayna maa'idatan min as-samaa'i mu taxaw ne allahumma rabbana anzil alayna maa'idatan min as-samaa'i keroog ba maa'idatu ba bàyyi ko ci asamaan wàcc ñi lekk ca seen bët tegu ja lañ door a xam ne yonentu yàlla Isaa mi nekku nitu caaxaan ñépp nangul ko yonentu yàlla Suleymaan xorondong moo ko wane ak Muusaa njubuli moo tax mayam yépp fu ko yàlla tuddee ci alquran Moussa njubbuli wutuwut ak namlatu rek la fa tabassama daaxikan min qawliha wa tafaqada tayra wa qaala maa lii laa ura laa aran hududa am kaana min alxaayibin boo ko toppee kon mayam yépp li ko feeñal bañ xam ne nekkul nitu caaxaan mooy am Moussa njubbuli ak xorondaw kese waaye Seyduna Muhammad nag moom cëram yépp ñoo wane mooy cër boo intéressé rek maam xalifa ne mu war la ne kii amul morom la ko wane dafa nekk ci biir jëmmam ja waaye li ko wane nekkul ca biti jëmmam ja boo jëlee tànk ba lépp a ko sopp tànk ba suufa ko sopp muy beeñ ba bu cay dox mu dëgër buy dox ci kekk kekk la soppeeku beeñ ngir sopp ko ténk laa tax bam taxawé ci minbar bam ko njëkkoon def ci medina di ci xutba muy ëkk ak tàndarma kérok bam mu ko mom muy yoxu ba jakk ji yëpp dégg ko lu khalifa wax wal jisru hanna ilayhi ba'da furqatihi way wal ifq anna ilayhi anna miskin mune tamit in maanaam in masabir in marra bir rambi la yabdu lahu atharu وإن على ala Sara saxru kat kon mom tànkam boo ñu wan mooy kat kon la wanek wane ci biir jëmmam ji la ne waaye nekkul ca biti jëmm ji muy tànk bi rek tànk boo xam ne buy dox ci gis plus cher buy dox ci du am jeexital ci métit ci tànkam tànk boo xam ne fu ko bëgg fu ko mos a dëgg dootul bëggati mu teqali koog ba bu teqali mu buy mala dana joy, buy nabat dana joy, buy jabat buy jamaat dana joy. ba ñëpp xam ne sopp naa tànk kon tànk ba wane na ko bët ya wane na ko yàlla mayoon na ko day gis li ci gannaawam comme ni muy gisee li ci kanam taxutoon sax mu am bëti gannaaw waaye bu daan jiite saxaba yi julli ku ko njëkk siggi wala nga njëkk koo sëgg ci ci bu paree dal ci sa kaw ne yow mi doon julli sama gannaaw nekk ci ñeenteeli sàppe baa juróom lu tax siggeeguma ngay siggi xanaa xamu la ne inni araakum min fii kama araakum min amaami kon dafa daan gis li ko féetee gannaaw comme na muy gisee li ko féete kanam bët baa tax yàlla tag ko ne maa basaru wa maa taxaa kon gis ya maanaam gisam nga lay la ñeexal ko waxatuma bët ya mais bakkan ya bakkan ya daana toog ci mulku di xeeñtu xet gu nekk malakoot ne ah maa ngi fii mais xet ak aljaan may xeeñ maa ngi fii ci madina xet ak safara ak may xeeñ bakkanam ya neexoon na ba daan xeeñtu xetu ku juddoogul muy uwaysul xarani nga xam ne taabiiyu la gisul yonentou bi yonentou bi tok ne mangi fi ci makka wala maa ci medina mais khatak ak uwaysul qaran ne yéen may xëy inni la ajidu nafas arrahman min qibali yaman kon koko mo gën neex yaquba bët moo gën a neex yaquba bakkan inni la ajidu riixa yusuf lawla an tufanniduuni bakkan ya neex waxatuma bakkan ya nopp ya dana tok yuuxu yay xew ak sàbbaal yay xew ci asamaan mu ne maa ngi dégg mu ne atati sama wa xuqalaha an tait ñu ne ko lu tax mu ne amul benn barabab sepre lu dul malaakaan fa toog di sujjóot di màggal yàlla kon nopp ya lay la bët ya lay la tànk ya lay la loxo ya timit keroog xarib tëbu bi saaba yi maree amul luñ naan bay jël tàndarma di ko jokkalante mu ballal ndox ci diggantey baaraam yàpp siddiit deret amul couleur ki caf nga ci xet lépp muy ndox mu sell lañuy naan jàpp kon loxo ya lay la waxatuma loxo ya ci may tëjee mooy taflit ya sax laa lay la koo tafli ma lu tax nga may tafli moom yonantu bi bu nit feebaraan bu ko taflee mu wér moo fekk ibnu akawa damm mu tafli ko mu mën a dox ca saasa di daw bokkoon ci ñi dàq daw ci arab yi moo fekk xataadatu bët ba buqee ko mu tafli ko mu gis ba xataa mamaatihi najda moo fekk àll yi wàndentu keroog xaybar mu tafli ko bët ba weex tal tee drapeau ba rey murhab tijji tataya gañ a xaybar mooy fekk ñam wu tuuti mu tafli ca mu bëri mu fekk ndox mu naqari mu tafli ca mu neex kon tafli ne sax lay la kon yonentu boobu moo ñu fi dajale lu mu mës a fekk mu naqari mu neexal ko lu mu mës a fekk lu bon mu baaxal ko lu mu mës fekk lu dëng mu jubbanti ko sayduna muhammad moomu yàlla nañu yàlla taaf ci barkeem yàlla nañu yàlla fajal suñu aajo yëpp ci barkeem sayduna muhammad ku dugg ci ron tànkam maam xalifa bi ak feebar booy génn yàlla nga wér ku fi dugg ak soxla boo génnee yàlla faj ku fi dëgg ak looy xëcc boo génnee yàlla nga ca jot ci barkeeb Seydina Muhammad ci barkeeb suñu xalifa bu tedd bi ak ay rakam ak ci barkeeb doomam yu tedd yi alxaji ahmad babacar bu tegu ci mënuma tëj mukk lu dul ma sant gërëm suñuy rakk yi nga xam ne ñoo taxawal tànt bi bañ man koo ronu tey muy njaboot ak mawlaaya alxaji ibrahima abdoulaye njaay maam góor léeg-léeg rek ma woo ko ne maam góor mu ne la bay ko ma ko maam góor waaw góor sa taxawaay rafet kon li ngeen fi gis lii lépp ñoo taxawal te xam nga ne yéeg ci tànt bi risque bu rëy la ku nangoo jël bakkanam sacrifier ngir def ko te mu waral ñu ñun ñëpp kon ñun ñëpp ñoo leen ameel ñaan ñoo leen kër la kenn ku ne fo manee rek ngay suñu doom ji Ahmed fi mu mënee wane na ko bu woyee nga bég bu waraatee nga kontaan bu woyee nga bég bu waraatee nga kontaan Seyduna Omar tamit tànt bu mu ronu rek ñëpp bég kon moom tamit fi mu mënee wane na ko yàlla yàlla fay ñëpp yiw sant nañ mbokk yi ni ko Oustaz Babacar waxee mbooleem muqaddamu maam xalifa yi ñu ci réew mi ñi ci bitim réew yebal nañ seeni njaboot ñu ñëw fii tey fekkee si burta bi ku lim juum suñ mbokki ku ci ay oto lañ def ma tooñ leen ne leen yéen da ngeen am ñaari gàmm ndax da ngeen ñëw ci gàmm ak tëj te burda bi noppalu samedi bu dimanche ngeen ñëwaat ci gàmm bi njaboot ak maam tamsir mot mbay mi maam xalifa demoon di ko jula yëkki ba mbayat oto lañ jël ànd ak xalifaab cheikh mouhamadul ghali Andak ak Baye Ibrahima Ngom ànd ak délégation mat sëkk ñu ngi nii toog njaboot ak tafsir Abdou Saw mi bind xif biru booy nekk sëriñ daaraay suñu sëñ bi alhaaji Ahmed Babacar xalifaam baa ngi nii toog alhaaji Moodu Saw ki ko yoral daaraam jaa nga nee ya toog Oustaz Aliou Saw njaboot ak Baye alhaaji Baabu Ndaw délégation bu mag lañ fi bokk yebal yebal seen doom Abdul Latif mu ànd ak ñoom indi leen njaboot ak alhaji Babacar ab xalifaam ab maanaam taawam la yebal mu ànd ak ay ay taalibe ñu ñëw fii fekke si bis noonu tey suma ko doon limee tabaarakallaahu tafsir Abdou Silla njabootam kër ndongo noonu lañ ko defee suñu mbokki jullee xaar noonu lañ ko defee suñu mbokki kër maanaam sanc maamu nduma noonu lañ ko defee suñu mbokki caameen waalo yi noonu lañ ko defee suñu mbokki njóobeen lañ ko defee suñu mbokki ndukumaan yëpp ci se këy ba njóobeen tabaarakallaahu amul fenn foo xam ne nii des nañ ku lim rek juum moo tax kon yal na yàlla fay ñépp yiw yal na yàlla teral ñépp yal na yàlla wuutu ñépp ci barkeeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaanam suñu mbokk yi baye ko timit ba cooyal suñu bàyyi bopp jaa ngi ni tey ñëw man sax dama ko yërëmoon ci déplacement bi mais terewut dafa ànd rek ñëw ñi ngi ñaan suñu mbokk ya nekk Palestine ñi nekk ci ak faat bakkan ci ay caaxaar way way way yàlla rek ka am dimbal yàlla na yàlla dimbale leen na ba xol yi ci tàngoon yépp yàlla sedd guy yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def phénomène bii xew muy tukki ci gaal yi waaye waaye yàlla na ko yàlla jeexal li ci gaañu ci suñuy doom suñuy rakk kenn xamut nañu toll ñooñu ñépp seen bakkane yàlla na yàlla teerew leen aljana waaye tamit yàlla na yee ñi demagul seen bopp yi ñu toog gëm ne war nañoo mën a tekkee ci réew yàlla na ko yàlla def ci barkeeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgguma guddal dama ñëwoon ngir taataan si su ma toppee waxtaan wi danaa fi mujj di wax a wax ba far taataar te jotaay boo ca amee baay am ca mag am cay rak am cay doom wax wàcc na la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu Référence TV, la chaîne de l'innovation.